service à pour début début na fexe ba élection yi doon élection yu mucc rek leer nañ ci gañe ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni lii la yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi si amee waroon contesté man mii la mais yàlla may nañu président Diomaye Diallo may ñu président Habib Sy Diallo may ñu président Cheikh Tidiane Dièye Diallo kon sama jëm gor yaay gor élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow bëri te it may dalal xel ñëpp nii fa ñu newoon amul lu ñu ëmb ci réew mi xale ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement Coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp jéeg nañu kon xamoon nañu ne xew ci biir di ko suivre والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلفون التلفون التلفون jëfandoo jëmm yi ñu jàkkaarloo waaye mën a sànni ay kàddu wax mboolem seen àdduna rawatina boppu Sénégalais bi yëpp laataa ñuy sori ci wax ji dinañu delluwaat ñaanal ñi nga xam ne seen bakkan mot na ci xeet bi nga xam ne moom lañu suñu yëpp te jubluwul si ñun muy defar suñu réew ba faw muy defar Afrique ba faral di wax nii ci sama gis-gis bu gàtt ma xut bu ma borom xam-xam waaye jàpp naa ni ñi seen bakkan ron ci anam bu mel noonu mën nañ leen boole ci dañu ne wooyee shuhadaa mooy ñi nga xam ne dañoo teewoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ci fekk fekk leen ci su tee nag ñu yokk ñaan yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen yàlla yàlla defal leen ci këru barzak yu yaatu yi di masaw ñi ci gaañu it ndax bëri na di masaw ñi ci tëddoon ci kaso bi léeg ci condition yoo xam ne yu xaw a métti la di nuyu bi yëpp wax nag ni wax ji mën na gudd mën naa bañ a gudd ndax dama namoon gaa yi dinañu fexe ba tënk ko ndax jamono yi toll li ëpp ci wax mooy waxu suñu candidat le président Diomaye Faye ndax wax ji mën naa bañ a gudd parce que nous avons gagné de chaque heure compte on moo tax ñu koy essayer tënk ci ñaar wala ñetti xaal balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la individuelle ñëw jàpp ci coalition Diomaye président te boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye toog ñoom wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaayuñu Sénégalais yi nit projet lañ jaay kon su ngeen ñëwee ci projet bi ñëw seen projet la di ci beral loxo rek suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy nawle lañu ñëpp xam ko suñu diggante weesu na partenariat muy la doyen Habib si ñuy toog fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye anam yi ma bëgg a mooy li jiitu élection bi lu na fi wax ni su amoon kenn rek ku waroon contesté mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel li mu def ñëpp xam nañ ci tegul ci yoon conseil na sur la base de la commune renommée moom dégg nañu ne condamnation am transmettre une condamnation mais moom moo dem def ay investigation pour dem tirer des conséquences qui loo xam loi mayu ko parce que loi il mu wax vous bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé la déchéance civique pour le génne il faut nga appliquer l'article L41 du code électoral mooy procédure bi ñu defoon te mu yóbbu ñu Ziguinchor andi ñu Dakar pour nous corriger. wàcce te loolu respecté le conseil constitutionnel nous reste de coder sur commande. ci nekk yëpp xam nañu donc soo amoon kenn ku war a conseil contesté man lay doon waaye def moom parce que li ñuy jëloon mooy dañu fexe ba projet bi placé ay candidat te projet bi am na ko moo tax mu profité ci woo Sénégalais ñu ànd ak tey ak

Abonnez-vous, ciao le Sénégal Abonnez-vous, ciao le Sénégal